salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay saa su ne ak ndaanaan bi ñu leen di wan ndaanaan bi ñu leen di présenté seen émission géwél yi ndaanaan yi tey nag ñu amal beneen ndaanaan ba nga xamante ne nii kenn dootu ko présenté ci mim réew muy doomu Grand Yoff doomu xar yàlla doomu jëppal doomu kasoor doomu derkele doomu ñaari commune yi nga xamante ne ñoo seq suñu commune yi fii mooy xale boo xamante ne nii ci kanam tuuti di ngeen xam mooy kan dama leen koy bàyyeel mu nuyoo présenté wu ñu dugg ak moom ci waxtaan bi Samba nuyu nañ la. alaaji waaw ñu lay fay bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp wax Sénégal yàlla na jàmm yàgg di nuyu sama yaay di ñaan sama papa yàlla na ko yàlla xaaree àjjana yàlla na suuf sedd si kawam bu baax di la fay di nuyu Sénégal ñëpp képp kuy bëggee Samba Souna maa ngi lay bëggee bu baax a baax. képp kuy bëggee Samba Soune ñu ngi lay nuyu ñu jógee nag ci bés bu màgg muy tabaski ñuy balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp salaam di ñaanal ñëpp wér ak wérle suñu mbokk yi ñuy jiitu fer daw si yal na leen yàlla yërëm te xare leen aljana ñun ñu fi des yàlla may ñu dëgëraay may ñu gudd fan yàlla sàmm ñu aar ñu suñu réew mi nga xamante ne ñu ngi ci at mu bees di 2024 yal na fi yàlla soppi naataange yal na fi yàlla sotti jàmm ak sutura ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ki ñu am doomu Grand Yoff la wante suñu doomu Grand Yoff marqué na empreinte ci réew mi ba ñëpp xam ko ràññee ko Samba Tambar Masoro la bu mag muy tëgg wante yemu ci tëgg mi rek mu ngi ci bongo yi mu ngi ci sabari yi mu ngi ci mariage yi mu ngi ci soirée yi Samba mu ngi ci làmb ji mu ngi ci lépp Samba. ñu la laaj ban année nga dugg ci aar aar mu siy dugg maa ngi am ay presque ay huit ans huit ans huit ans yooyu noonu mhm. ah, di jàng tëgg doon ndaw mhm. waaw di jàng tëgg fii xaar yàlla mhm. ku ñoom lamb bu naa baas di ko nuyu suñu papa ji di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal suñu yaay ndey mbooj tamit yàlla na fi yàgg te wér waaw ba ñuy am ay sept ans lañ dugg si aar waaw moo tax aar mënuñoo jaaxal quoi. Mhm. waaw nga moo tax toujours ma naan nit ñi nañ dem di jàng ji aar. Mhm. aar dañ koy tarbiyu. boo ko mhm. tarbiyoo yàlla suñu borom dara siy jàppale. mais léegi booy yu fekke fekkewu ñoom fu ñuy ñoom fekkewu ma fu ñuy jàngee aar. jànguñu aar la jànguñu xaaj bi ñëpp kenn jàngul ar booy di tëgg nii yëpp man sama làmmiñ laa aar man yow xam nga ma man lu ma bëgg wax dama koy wax de. dañuy xëy rek dugg ci. waaw ñoo xam ne ñoo xëy rek si bagage yi. te bagage yi boo si dugg da jàng. école sax booy dugg da ngay dugg jardin. wala mhm. mhm. école booy jàng jardin ngay commencé. petite section ak yooyu noonu grand section yooyu yëpp. Mhm. yaa ngi dégg. moo tax kon di wax nag sama mbokk géwél yi nag gars yi dem di jàng ji jàng ji dafa baax. parce que pour suba moo tax bu la laajee ñu ne lii lii lii sabar lii la mooy sabar bi lan la ak lii ak lii di lay question pour nga mun a wax. mais booy ñoo fekkee fu aar bi neexee. dama may nekk xale laa jàng ji dama jàng ji man dama wër jóge xaar yàlla dem. kër kër Mbay Fall si Abdou Sène di wër fu ne. da nga jaar ci per laama jógee ci laama dem kër Mbay Fall ci Abdou sen waaw toog fa di jàngat lépp di jàng dem man dama doon jàng di dem fu di jàng di tëgg topp simb yeeg lépp di jàng aar pour mën ko ba yàlla def tey jii nii may dem ba di tëggal mbër di tëggal di tëggal pap cona loolu sant yàlla la. Mhm. maanaam ginnaaw bi nga jàngee aar ba mokkal sa aar. Mhm. da dem ba am sa yëfu bopp. man ba ma demee ba jàng aar ba mën dama ñëw sama dëkk dama dellu sama dëkk Graaf. Mm-hmm. fekk fa ñoom Papa Dumbuya mm-hmm. ñoom Memba. Mm-hmm. ñoom laa nekkaloon. mais xaar yàlla bii laa jàngee tëgg. a yàlla bii waaw tey lu ma mel moom xaar yàlla la moom. damay wax dëgg moom te yàlla tax tey lu ma mel nii moom xaar yàlla la ba fa laa jàngee lépp waaw dama dem gars yi mottali ma rek xam-xam ma ñëwaat. géwél nga wala géer nga. man géwél laa man ngoom laa sant. Ngom Ngom séeréer la. waaw man Ngom séeréer am na géwal. Ah, am na géwal am na géwal waaw man Ngom géwal man Adama Ngom ay sama maam. ah waaw Adama Ngom sama maam. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. waaw man su ma tëggul sax da nga ma war a dóor man dama war a tëgg. Mhm. dama war a tëgg parce que man dama mhm. judd rek di tëgg. xaw ma sax lu ma tëgguloo dugal ma école fu ne mais man sabar rek. sabar rek kase ma doon daw jàng. sabar. mais mais jàng as tuut. waaw jàng naa tuuti jàng naa tuuti dama jàng xam nga classe géwél rek. classe nante waaw fala yam fa laa yem yam <laughs> 2 fa laa yem de. la yem. CM2 laa yem. Mhm. fa laa di tëgg sabar ba tey. mais mais sabar am nga beneen métier. waaw à sabar am naa beneen métier maa ngi liggéey mekke maa ngi liggéey mécanicien moto di jaay ay moto kon boog di jënd ay moto di jaayaat. business waaw di business. moo tax toujours maanaam gars yi benn métier baaxul ni da ngay am ñaari métier mhm. ah, sabar bi sabar bi du nekkul chaque jour lay lii mhm. ak samedi ak dimanche vendredi kese nga si am mais yeneen jours yëpp yi ngay toog doo doo tegi nga dem liggéey ko moo gën am loo dugal sa poche mun a gérer sa famille waaw mhm. ah, mais di topp sabari rek dëgg la ay la ñu mais sabari kase tam du métier du métier bu nekkee yàlla may na loo xam ne si sabar yi bu la neexee bu liggéey del yeew di tëdd rek di yeew di nelaw kese tëdd ka yeew mais da nga am beneen métier waaw ma lay laaj sa digganteeg mbër mi nga xamante ne nii saa bu ngemboo di dem stade di di bëri ji yow yaa koy gunge yaa koy tuusal ba nga ama moom wala ay mbokk ngeen wala da nga nekk géwélam kan mbër bi loolu dama si sawar a wax bu baax a baax a baax saa yaa ngi may a laal mm. kooku daa bokk si man mm-hmm. man maay moom moom mooy man mm-hmm. kooku man jamono mooy jàng tëgg da doon bëre mbapat ñi ànd muy bëre mbapat bu waree tuus mu nekk tëkkat bu ne bu kenn tëgg kii moom mooy tëggal jël ma teg ma doon lu ndaw moomu njëkk yóbbu 2S sama àdduna Bécaye Mbaye ma njëkkee wane télé. Mhm. Bécaye Mbaye naan xale bi kàlla kii fu mu jugee Zarko ne ko xale bi mooy toji réew mi ëllëg bilaay. Mhm. moomu njëkk yóbbu télé Zarko di ko remercier bu baax sama xarit bi di ko ñaanal combat bi la kat yàlla ko yàlla suñu borom may ndam mhm. waaw mu doon góor gu dëgër doon jàmbaar. bëgg ma c'est que nit ki balaa nga koy xam nga nekk ak moom wala nga toog ak moom wala nga koy fréquenté ngay xam baaxaayam ak ku mu doon. Mhm. mais Baye Fall lañu noonu ay Fall. kooku moom Sarko Sarko Baye Fall ba noonu barke Serigne Touba. benn benn benn complexe bu doy waar bu am sa diggante ak moom. Mhm. comme moom des fois suy bëree. Mhm. saafara yi muy yor. xamal li ma wax ba ci gàllaaj yi. ay gàllaaj di la sotte ay saafara. ndax yooyu say saafara la wala boog yéen ñaar dafa am loo leen bokk loo xam ne war ngeen a mën a loolu loolu loolu moom moom man sama aar moom mooy aar saa yu bëree moom mooy aar mooy sama lépp ah. waaw man ni ma mel si moom ñu mu bokk ak ndey sax ñu bokk ak ndey ak baay sax meluñu si moom. Zarko ñooy toog chaque jour ñooy coobandoo ñooy demandoo entraînement ñooy defandoo lépp fu muy dem man ak moom mooy dawal maay toog si wetam ba fii jëm du ma nëbbu dara man tamit du ma ko nëbbu dara. mu doon àndu dëggu ànd boo xamee du xaalis du xaalis du dara àndu dëggu la wax mhm. ñu ne ki boo ànd nga si dëgg te yàlla tax mhm. moro Zarko dëgg laa ànd ak moom si moom dëgg laa ànd ak moom te yàlla tax mhm. fayuma joxuma dërëm lépp lu ma am mu ngi koy bokk ak man man tamit lépp lu ma am maa ngi aadama yi foofu laa bëgg na ñëw sax ci fayuma boobu parce que dañuy dégg des fois day am combat nga ànd ak booy def ngeen def seen répétition. Mhm. suur làmb jot ngeen dem esaat. Mhm. ngeen bàq tëgg ay tëgg ba pare mhm. léegi booy yi dañuy toog des fois ci yenn booy yi nga xamante ni jot naa leen a dékk sama micro ñu ne ma Samba maanaam du fay naar bi xoromam Zarko buy bëre da ñëw tëggale ko ba ba tooy te soo paree Samba du la jox dara ñi ne Samba Zarko du ko jox xaalis muy def xaalis bi ci poosam ñi ne Zarko du ko fay waa sa diggante digga loolu noonu dama di sawar wax moo tax toujours rek loolu wax boobu ngay wax nii dégg naa ko ba sonn mais après ñoom ñëpp ñoom ñoo gisal seen bopp ñoo teg ñoo gisal seen bop ñoom ñëpp laa jël da leen kaa leen yóbbu leen ba gaale Zarko Zarko toog Zarko magum jëmb la magum jëmb la am lu mu dee am na jabar am na doom kon dëgg dëgg moo ko war. Mhm. ma woo ñëpp ñu toog ma ne Zarko yi nii toog yéen a ngi nii toog Zarko ma ko yow da nga ma mës da nga mës a fay ma mhm. mu ne am mu ne ma ku wax loolu ko ah, maa ngi dégg ñu ne booy ñeene may dag may fay hmm. Zarko saa yu bëree barki Seydina Muhammad saa yu bëree ba pare billaay wallaay du ma taxaw bundu këram sax di ko laaj xaalis billaay wallaay nee naa man Zarko su waree bëree man su ma ay million dama ko siy def parce que sekk ko sekk nañ ko moo tax toujours la laay wax géwél yi boo leen ànd ak nit ngeen ànd ak moom si dëgg te yàlla tax. mais booy xamuñu nga jiital xaalis. mais ñoom xamuñu loolu. non mais léegi dama leen koy xamal quoi. Hmm. parce que suñu defal nii yëpp parce que man dama fay dama ko xaar dama fay toog xaar ko parce que toppee ma ko xaalis bu amee ay millions yàlla suñu borom moo ko ko may Zarko dama ko koy nangul su ma mayee ma jël su ma may du ma jël du ma ko toppee ngir xaalis parce que kon bu boobaa ànd bi du doon du doon dëggu kon àndu xaalis la nit ki képp képp képp ku nekkal ak ak mbër mbër képp ku nekk ak mbër dama bëgg ni mbër bi nga nekkal ngay ànd ak moom si dëgg te yàlla tax. parce que que parce que yow kese ànd man kese tëggoo man kese boo yow yow kese loon tëgg tëgg mi doon neex booy ne nañu dañuy ñëw tëgg ba seen yaram tàng mais le minimum sarko xanaa dina yëkkati benn trois cent mille sax teg ko ci table bi ne la sàmb yaag booy naan leen ci ataaya la loolu force la sarko saa ma joxee ñoom ñëpp dama leen woone leen wax loolu dañoo dañuy fekk ni rek dañoo yor seen làmmiñ di wax rek mais man lu may def kenn du ma kenn du ma bàyyi ma sama booy yi may àndal lépp lu may def damay woo ñoom ñëpp ñu toog ma leen Zarko moo def lii moo génnee lii moo non damay wax damay wax loo xam ne moo nekk si man te ñoom te ñoom boo leen laajtee sax dañ leen koy wax Zarko lépp lu muy def damay woo ñëpp ñu toog ma leen Zarko yi nii yëkkati na lii jox nañu ko nee na ñu jàpp si combat bi léegi mujj bi Zarko xam la leen wax léegi ñuy wax Zarko pour ñu pour pour mu fay leen Zarko dañoo toog ñu ñëpp réunion mu ne leen bu nekke ngeen bëgg ma fay leen ngeen wax amul problème mais xam naa ne Samba Suuna du wax ay waxu fay léegi yéen boo leen bëggee ma fay leen boo yëpp ne tekk tekkaaral. kenn waxul kenn waxul parce que Zarko buy bëree du Zarko de Grand la du Samb Suuna Grand Yoff la kon ñëpp dañ si war a mën a génn jàpp si. Pikine Ama Baldé buy bëree Xaali Mbay fa la nekk si Wally sek mhm. Ama Baldé buy bëree day bàyyi léppam day ñëw day jàpp si tëgg bi kenn du ko fay dërëm Bécaye Mbaye du ko fay dara. ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ay ñoom Jibi Gueye ñeneen a ñeneen kon ñun waa Grand Yoff mbër buy bëree ñun géwéli ñëpp si war a mën a jàpp te yàlla tax bu nekkee sax dañoo tëgg làmb ba mu jeex boo si amee sa benn 1000 francs am si sa benn 2500 nga xam ne lii la la yàlla borom jox nangu ko mais nañ bàyyi di jiital xaalis wala di toog naan ay mbër lii ak lii ak lii fii ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si nekk yóbbu na ma làmb dem naa tëggal ay booy làmb fii tëgg naa ba pare kenn kenn séddu ma du ma si du ma ma si wax parce que Grand moo tax ma dem de booy taxu ñu ma dem de Grand Yoff moo tax ma dem ak kii di tëgal mbër bi moo tax ma dem bu nekkee xaalis rek maa ngi sant yàlla maa ngi baax maa ngi koy yëg nice kay. ah pour beneen yoon tamit. li hmm. ngeen di wax danañ ko teg ci lu leer. Hmm. Samba Sarko buy bëree da koy tëggal Sarko du ko fay ñii di wax ne Sarko mu ngi koy fay day jël xaalis bi di def ci hmm. posam Samba mu ngi ni leeral na question boobu. Ah. léegi kon dañuy jàllale Sarko sax moom si boobam Sarko si jëm boobam sax leeral na ko moom moom woo nañ la ñoom ñu toog mu ne leen ba xam Samba Suuna musuma ko fay mu ngi nii musuma ko yëkkati ne ko lii ak lii su ma koy su ma yëkkati jox xaalis sax dama naan ko eh war booy yëpp ñu ñëw te dëgg la damay woo booy yëpp ñu ñëw booy koo si woo ñoom ñëpp muy ñoom nongook ñoom jilaane ñoom ñëpp booy yëpp ay ñëw booy Arafat yeeg ñëpp ay toog saaru ñoom Zarko Zarko ne leen génne naa temps lii laa teg si table bi bu ñu paree day naan lii laa jël lii laa joxe pour ngeen forcer a sabar bu ñu paree booy di ngi ne moom dañ si génne temps pour ku nekk ku nekk jël si bu dee cinq mille sax wala deux mille cinq cent sax nga jël ko si hmm. Mhm. ñi dem mhm. a ma répété bu jotee du ma xaar kenn damay ñu ma war a woo damay woo ñëpp parce que affaire grave la mhm. du ma boo kii bàyyi kii nii man su may def su may def open press wala dara ñëpp laay woo ne ñëpp ñëw parce que grave la boo dëkkee grave da ngay deretu grave da nga war di sot da nga war sot ñun grave yi ñoo ko war a mën a changer ñun dëkkat yi ñoo ko war a mën a changer bàyyi jiital xaalis bi géwél boo gis ay waxu xaalis lay xuloo waxu xaalis waxu xaalis xaalis mais waaw mais tëggkat yi yéen a ko war a changé. dama euh, euh, xamal dara man man man déggoo. waaw tëggkat yëpp samay xarit lañu Grand Yoff ku si xewle ñëwal naa la ku si xewle su ma ñëwul yëkkati naa jox la amul ku ne musuma la teral amul géwél bu ne sàmm suuna musuma may xaalis parce que Seydina Muhammad te lu ñu def mën naa ko de dem tëgg sabar taxaw nii waxal ni ñi may ma xaalis mun naa ko suma ma neexee soirée yi may dem nii su ma neexee ñëw jël sabar tëgg. waayaan ñi may ma xaalis mais du ma ko def. Mhm. damay ñëw ñu woy ma mu yëge sama xaalis maye. Mhm. après pare dem dem ñibbi. Mhm. man soirée su ma jël nit sax su ma paree du ma xaal kase damay ñibbi talu ma ko damay ñibbi. parce que dama pour bégal sama yaram. waaw ndax grand quoi moo tax. loolu yow xam nga loolu si man sax yow kenn du la wax sax ya gis nga. damay ñëw tooyal sama xol. wa pour sama mbégteeg sama bànneex mais Samba am na lu des. dafa am ku ma laaj sama micro sànq. mu ne ma Samba mënul tëgg. ma ne ko mhm. lu tax mënul tëgg. parce que ku mënul tëgg yaakaar naa mbër mu toll ni Zarko. Mhm. doo buub say sabar. Mhm. ànd ak sa groupe sa combat nga dem di ko tuusal. mu ma Samba amul groupe. ma ne ko lan ngay wax ni mu ne ma Samba du créer. Samba maanaam xamul dara ci tëgg mi. maanaam wax ay wax yoo xamante ne nii man après sama yaram dafa daw ma ne ko nag garaawul man su ma toogee Samba. dinaa ko laaj Samba lan moo tax moom amul groupe ak moom su waree tëggi. ay Pikine nag géej waay fu ne lay woo ay darman di leen dajale pour ñu tëgal xam la moo tax Samba du Samba Grand F rek mais amoo groupe Samba Samba Ndakaaru la non mais xaaral xaaral mais fii Tambar Mosor yi fi nekk ku nekk am na su groupe boo xam ne fixé na ci yow man man man aw ma groupe xam la moo tax man la man aw ma groupe man lii laa lu ngay waxatee sax na laal ko mën a am xam na laal na laal mën a waxatee war a am groupe euh, mais mais xam la moo tax fii heure boo jógee yow tamit ñu jóg xam la moo tax xam la moo tax fii concurrence dafay bëri si booy yi fii nii concurrence yi mhm. dafay bëri te man nongo barki Seydina Muhammad su ma tegoon samay groupe teg sabar kenn kenn du dégg kenn du dégg kenn man rek ngay dégg dama ko xam rek parce que Seydina Muhammad non du dàq non du dàq tëgg sax xam loo xam ne yàlla moo koy def si doomu aadama mhm. te loolu dafa nekk si man mhm. su ma ko waroon léegi-léegi doo kenn man yàlla daf ma boole ay nit yoo xam ne ku am programme danga naan Samba Suuna kaay jàppale ma ku si mel ñoom Xalim Gueye foofu sama kër la. Mhm. moo tax su may tëggi damay jékki-jékki rek woo leen dama leen woo lu ñu jàpp nañ koy bàyyi xam ne naa la fa laa jàngee tëgg. ah mais moom barki démb wax na lu garaaw de. waaw lu mu barki moom dama ko invité mo wax lu doy waar nee na fii. Mhm. ñaari communes yi leen seq fii. Mhm. Grand Yoff. Arafat. ba Cité Millionnaire. jëppal derkele xaar mm-hmm. yàlla kasoor ak mm-hmm. li ko wër lépp kuy fi mm-hmm. tëgg ku fiy tëgg rek mooy sa baay moo la dàq tëgg waaw mais parce que loolu c'est normal parce que loolu c'est normal yow nangul nga xam la moo tax man nag dama ko koy nangul parce que la moo tax boo jàngee da ngay mën man boo mënee dama lay nangul xalin daa mën nangul nga ne yow moom moo fi dàq tëgg yow xalin déggulu ma la wax waxuma la moo fi dàq tëgg de mais moom loolu la wax waaw nee na ku fiy tëgg mooy sa baay moo la dàq tëgg waaw xam nga xam nga loolu mun na ko wax dëgg la nit moom mun nga wax lu la neex mais man dama koy nangul le xalin daa a tëgg daa mën a tëgg man dama ànd ak moom programme muy diriger may nekk si ginnaaw am loolu sant yàlla la man daaxantewu ma kenn tëgg de man maay dem esaat maa ngi dugg si ñëpp xamee ndax àdduna ñëpp xamee ne Samba Soune ñëw na mhm. moom mën na bés bu mag man bés yooyu laa mën man nee naa la Zarko bu baax bu baax bëri léegi léegi parce que Serigne Touba damay bàyyi tëgg bu baax léegi keroog ba may def émission rek wax naa ko bu baax bëri damay bàyyi tëgg làmb barke Serigne Touba non parce que moom moo tax may tëgg làmb mais bu nekkoon moom moom rek du ma tëgg làmb barke Serigne Touba. ah moom moo la dugal ci làmb. moom moo ma dugal ci làmb su ma demee ba ñëpp di jëpp ñëpp xam ma nee naa la moom njëkk a yóbbu 2S ba kaay jël ma kay kooku kay bu bàyyi damay bàyyi <laughs> damay bàyyi man àndu dëggu laay àndu mhm. bu bàyyi damay bàyyi mhm. xale ngay di ko ñaanal nag si li mu nekk nii yàlla na ko yàlla suñu borom jàppale xale ngay sama rak la sama frère la di ko ñaanal bu baax a baax a baax keroog soirée bu def neex na affaire yi noonu la rek da ngay gëm sa bopp rek imposé boo imposer yàlla suñu borom dina la jàppale. Mhm. bu baax a baax a baax. mais mais Sambala yow lan moo tax yow tamit imposé woo comme booy. kan man imposer. booy ñu ngi def ay ay ay son. Mhm. booy ñu ngi def ay clip. Mm-hmm. booy ñu ngi def ay ay dîner de gala. Mm-hmm. booy ñu ngi def ay soirée. Mm-hmm. xam nga booy ñu ngi tëgg ay concert. mais Samba yow kenn déggul la ci dara dara dara yow kere woo dara kon booy maanaam li ñu lay jooyoo dëgg la quoi. non man moom déggoo nañ ma bàyyi ma kuul ma kuul nii rek <laughs> man moom yaa ma gën a xam. Ah. man c'est que affaire yi dafa dafa. non mais nag Samba loolu nag duñ ko d'accord de parce que tamit tëggkat bu mag bu toll nii yow di tëggal Sarko xoolal caméra bi ah te yow booy booy Samba Diarra Samba Diarra. Samba Diarra day tëggal mbëri mais mu ngi toj. jibi jibi gisee noonu yeneen booy noonu xalil mii ngay wax noonu keneen ak keneen noonu ay petit coppet noonu mais mais pourquoi yow yow doxoo ci ay single clip soirée la moo tax la moo tax maanaam góor nga amul waaw léegi la non non déedéet man polyvalent laa yaa ngi waaw waaw la moo tax Pape buy tëgg ci groupe bi fa laa bokk non non d'accord xaaral foofu point la mais dama ne la yow da nga war a am sa groupe boo xam ne comme booy ni ñuy def da nga war di tëgg ay soirée mm-hmm. di tëgg ay ay dîner mm-hmm. di tëgg ay ay ay concert mm-hmm. est-ce que comprendre maam am say giir am say nit di leen invité di leen tuddee comme booy niñ koy defee parce que booy daakuñ laa tëgg daakuñ la taasu daakuñ la wax xam nga li ma wax te tey saa boo amee programme doo manqué ay darmaam parce que ko woo mu ñëw mais pourquoi pas mënoo am sa benn groupe di créer comme booy parce que loolu mun naa ko def mun naa ko def su ma bëggee tey tey tey tey tey ma def ko mais xam la moo tax defuma ko xam la moo def la moo tax defuma ko. parce que instant nii aar bi fu mu toll dafa jaxasoo xam la moo tax ma ne dafa jaxasoo. Hmm. defan tey dafa bëri ay fi maa fi nekk fii maa fi lii man nag si yooyu laay do laay laay daw. non nga barki Seydina Muhammad su ma bëggoon tey tey tey tey mu jënd bëtiri sabar mun naa ko Zarko suma ma nekkoon léegi allo Zarko bëtiri sabar laa bëgg léegi léegi da koy jënd du sax teg baat barki Seydina Muhammad du sax teg baat. mais c'est que defante bi jàppal fii kii moo fi ne kii moo fi ne te te ma ay jigéen di jaxase ay mboroomu góor yàlla moytul ma loolu moytul ma jigéen di jaxase ay góor moytul ma loolu. Mhm. parce que léegi booy boo gisee artistes yi léegi ñu bëri ñi ñi ñi ñi am ay problème ay jigéen la kii naan kii laay woo Samba Diarra Mbaye kii naan kii laay woo kii naan lii lii di jaxase nit ñi te léegi booy daa am ñoo xam ne dañoo ñëw spécial pour yàq aar bi. mooy da ngay ñëw nga ne ma Samba Souna programme laa bëgg ma la boo ma joxul cent cinquante mille du ma la tëgal. yaa ngi dégg mm-hmm. ñu ne ah xaa ñu woo benn nongo caar rek ñu ngi woo ndongo caar xool ñu dem woo keneen ah waaye boo ma joxee cinquante mille wala trente mille quarante mille day nangu day nangu da la koy fay kooku yàq na aar bi rey na ko instant yow rey nga aar bi. la la mooy waral loolu. la mooy waral loolu moo tax moo tax ma ne la gis nga nit ñi dañuy jaxase nit ñi. barki Serigne Touba nit ki boo amee groupe di ànd ak ay doomu aadama booy engagé engagé loo xam ne ku si nekk ni nga si mën a gis sa bopp yaa ngi dégg moo tax man du ma gaaw a tëgg moo tax man booy dégg ñaan Samba Soune mooy tëgg tànnibéer bu mag rek loolu rek ngay dégg mais à part loolu yenn tànnibéer yi nii non du ma ko ko joxee dama koy jox ñeneen ñeneen laa koy jox. barke Serigne Touba mais d' accord naa parce que dama bëgg a waxtaan ak yow si sa wàllu carrière parce Samba Suuna ba muy Samba Suuna ba léegi mu ngi bëgg a yàgg Samba Suuna créé wu fi benn single Samba Suuna génne wu fi maanaam benn bàq boo xamante ne nii nit ñi tey ñu ngi koy challenge ci ni nag Samba Suuna moo créé lii parce que booy ñu ngi fiy créé ay feccal Mario Mbaye ay feccal sous xam nga ay ay ay sësal ay yeneen ak yeneen mais Samba yow créé woo fi dara. mais feccal Samba Suuna waaye xam nga loolu loolu loolu loolu moom bàq boobu rek la mën. fekkel sàmb suuna waaye. mais loolu dafa yàgg te yow loolu loolu am na booy boo ko doon xëccool am na benn booy boo ko doon xëccool booy boobu booy boobu dëkk Pikine na moom moo ko créé. daa ko doon xëccool yaa ngi moo tax man léegi moo léegi nag moo tax ma ne affaire man du ma si xëccoo su ma defee dara nga ne yaa yaa defar yaa ko yaa ko yaa ko créé dama la koy jël bàyyi la ko góor soxorul na xol bi tooy rek. waaw lool noonu loolu yàgg na waaw di booba léegi nag moo tax ma toog jàpp sama ñàmbur c'est que man ay détails laa talul moo tax man ma fu ma toog ma toog fa rek jàpp sama ñaam man lu ma war a tëggi maa ngi koy war a tëggi de lu ma bëgg a tëggi maa ngi koy tëggi de su ma sama programme sama nit yu baax yi maa ngi leen di dem tëggali ñëwaat de waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax man man sama programme yi may am ak ñi may woo programme bongo yeeg sabar yi ñoo ngi rek doy nañ ma barke Seydina Muhammad ñoo ngi rek doy nañ ma ak Zarko mi kase doy nañ ma à part ñoo à part jamaa fuu man man ma yooyu noonu sax bilaay ku am programme boo woowee Samba Suuna dina ñëw boo ma tuddee naa ñëw def ak yow rek may la xaalis rek waaw xam nga nit ñi moom lii la ñu jaamu. Mm. rek. mais daal Samba. Samba. Mm. Samba waxtaan wax dëgg ci la. Mm. yow sama rak nga sama xarit nga. ku ne xam na ne da ngaa mën a tëgg pire. mais tey noo xaar rek dañuy waxtaan. Euh. mais tey fu ñuy dégg ay Samba Samba Samba Diarra Mbaye dafa dégg ay ay ay ay jibi gisee. dafa dégg ay petit coppe dafa dégg yeneen yeneen ay xalil gay dafa dégg ay nabila di fa dégg yeneen booy yi a normalement dans les normes tey waroon nga yegg ci niveau boobu. parce que xam la mooy problème waaw man dama jël sama lépp focus ko si làmb yi. loolu. waaw te yow doo mbër. non non dé non nekkul nekkul nekkul question du ma mbër. ah waaw mais lan xam la moo tax loolu noonu. xam la moo tax man bàyyi dégg lu ma la wax Zarko bu bàyyi bëre nii léegi man damay bàyyi tëgg làmb xanaa waxoon wax naa la ko léegi léegi man si loolu laa focus sama nit ki may àndal depuis ba dara dul dara fi lay doon toog naan Zarko bàyyi na wul boobu ñu ngi nekk di def li ñuy def rek. yow Sarko lu mu la defaloo ko. non lu ma la wax. kooku la jox oto wala da la jox kër wala scooter wala lan parce que ay temps déggoon nañ ne joxoon nañ ko fa ay scooter est-ce que boole woon na la ci ñim jox scooter. ma jëndal. waaw scooter bu jar sept cent mille. boo bëggee ma wala vidéo bi scooter bu jar sept cent mille te ba ma koy jox sax ndeysaan daf ma bett daf ma fekk ba atelier ñëw di waxtaan ak buuba buuba sim maa ngi koy gërëm ah buuba sim sama xarit Séri Kiné yaa ngi dégg mu ne ma mbotu bi yaa ko moom ma ne ko bi maa ko moom mu moom ma ne moo tax nga wax loolu mu ne ma loolu yaa ko fa am te yaa fa xaar mu yëkkati jëndal ma ko mu ne ma des na des na quatre pneus yi loolu raw quatre pneus yi sax da nga koy am waaw parce que góor gu dëgër nga ak Seydina Muhammad hmm. waaw loolu rek sant yàlla. mais kon Sarko mu ngi joxe. non si la dëkk ma sant grand xam ne lañ bëgg ay kii def taxaw di wane wu ne nii déedéet Sarko day def si sutura am ñoo xamante ne ba xaaju guddi barki Seydina naa mu leen eh ñu jóg mu yëkkati loo xam ne yow yow da tiit sax ne la am yaa ko moom ngay tiit naan lii maa ko moom yaa ko fa am yaa ko moom xam nga kooku day def si sutur mais nit ñi dañoo bëgg kii kuy def pour nit ñi di gis gaay yi gaay yi fa lañ toll temps bi fa la toll mais nit ki boo def da ngay def si sutura mais Zarko fa la toll quoi sutura lay def te lépp lu mu ko am mu ngi koy bokk ak waa koñam Zarko mosoo dugg koñam gànnaayaf ñu ne la Zarko mii du joxe wala déedéet Zarko day joxe ku si am sa problème. dala koy fajal parce que Serigne Touba maa teg sama bët sa jaraluma fen joxuma ma naan joxuma ma lekk mais damay wax dëgg te yàlla tax fii képp ku fi am problème boo wax bu nga wax ko Zarko su ko mënee da koy def barki Serigne Touba da koy def moom loolu problème pour loolu rek joxe du problème barki Serigne Touba du problème. Grand booy wax booy wax ku fi def social. waaw kenn ngay wax muy Alioune Badara Kebe. Kebe waaw kooku man ma fekkee li ba muy def commencement ba fin maa la si mun a wax. ñu nekk si mbedd yëpp mënuñu la si wax. mu moom moom mu ngi def social. kooku si si la dëkk. waaw mais Sarko pourquoi doxul si tànk. waaw kooku kooku si la dëkk ñoom ñaar yow doy waxtaan ak tey kooku Sarko bu ñëwee tey bay bëri nii yàlla ak moom la yàlla ak Badara Kebe la ba ko gaa yi ajee yàlla ak Badara Kebe la waaw Badara Kebe si social lay dox àdduna ñëpp xam nañu Badara Kebe social lay dox mooy jox taalibe yi aide yi lépp lu mu mën Badara Kebe <laughs> président fay ko de. Badara Kebe poosam lay génnee président fay ko Macky Sall fay ko Jomaay fay fay ko Badara Kebe lépp lu mu am si poosam lay jógee bitim réew la nekk di liggéey te yàlla fa def ni léegi ambassadeur Libéria la Libéria léegi ambassadeur la fa yaa ngi dégg mhm. fa lay liggéey bu ko bu ko gaay bu ko gaay mu jël xaalisam di ko di ko di waa waa Grand kon waa Grand Yoff ñoo war a yeewu xam lu ñu bëgg Badara Kebe da leen bëgg te yàlla tax soxlawul dara Grand Yoff Kebe xam loolu la bëgg pour defal Grand Yoff na ay jour yóbbu leen kaaba ñuy fubal social lay dox di ko ñaanal man saa ma julee dama koy ñaanal bu baax a baax a baax di ko ñaanal bu baax man moom hmm. man ak yow Badara Kebe ñooy hmm. ñooy tëddandoo ñooy yeewandoo ñoo bokk benn kër bu ñu dëkk mu jël ma amul lu ma defalul amul lu ma defalul parce que Seydina Muhammad lu muy def na sàmba suuna kaay lii wëg lii wëg lii kon loolu sant yàlla la kon man nee naa la nekku ma nekkuma Samba Suuna grand kase ñu bëgg a ñëw nag ci sa wàllu aar bi nga xamante ne ni mooy sabar yi parce que lii lépp tamit waroon nañ ci xuus avant avant lii lépp wante dafa nekkoon ay question yoo xam ne mënuloon a ñàkk ñi tel ci dugg pour waxtaan bi mun a neex léegi nag dañu bëgg a ñëw ci li nga xamante ne nii ci la la réew mi xamee mooy bii nii sa kanam nga wax ni moom mooy lan na ak nu mu tudd ndeer ndeer lan lii mooy ndeer non lii ndeer jéembe la parce que hmm. lii léegi gars yi lii la ñu xewal mais li tax ñaan sabar li moom li moo tax ñaan sabar am ay peeg bii mooy gorong col waaw gorong ah bii gorong lii daa am ay peeg lii mooy peeg <laughs> lii mooy xiir yee ngi nii mees yi hmm. waaw lii deru bëy la hmm. waaw bant bi bant bi bant bi niim la mu ngi nii bant niim la lii galañ bi galañ yu la léegi léegi bu njëkk mag ñi dañ doon wax ne avant ñuy tëgg da ngay tàggoo léemu nuyoo waaw léegi nag ñu ne tëgg mi léegi amatul loolu waaw xam nga parce que moo li ma wax moo nekk nii li ma wax moo tax ma ne la aar bi daa yàqu léegi booy di ngi ñëw sax programme ñëw rek sóobu ceebu jën baara bay bi daw kase daa war a foo da commencé mooy fan ah. loolu la nga war a tàggu mbaar. li li nga def léegi mooy lan. mooy tabra takin tabra takin tabra takin tabra takin mooy tàggu mbaar nga tàggu mbaar gaay naan ah, cooli génn ah. cool la loolu mooy cool. waa lii mooy cool. mais yaa ñuy moom lan la ci sabar. yaa ñuy moom loolu moom mooy ubbee maam Bamba yaa ñuy moom bu ñuy dund ak bu ñuy dee. yaa ñuy moom yaa ñuy moom loolu. mais damay dégg ñu ne maanaam mooy léemu bi quoi. waaw mooy léemu bi moom ngay duggee da ngay njëkkee maam Bamba yaa ñuy moom doo ko dugg si programme bi. leer na de mais mais mais ban baax ban baax moom moom laay dégg nga koy tuusalee sarko feccal xaw ma Samba. Samba su waaw waaw waaw waaw waaw. mooy buy tuusee ba si yàgg. waaw nga ne ko. gannaaw dañu naan Samba su loo wax ma bëgg a wax Samba su nga ne lan ma du tiit du ragal du ko def parce que mooy taalibe borom daaru te Grand Yoff la dëkk te malfaiteur bu ci làmb yi koy linjaa chaque lamb ba mu ñëwee ba léegi loolu lay tuus. loolu nga koy tuusal loolu la tuusal ku mu jàpp leen di njaa fët fët du yàgg sax. nga ne feccal Samba Suuna waaw gaana Sénégal jëm kanam loolu rek la affaire yi loolu rek la de. <laughs> bilaay mais mais mais mais mbër dafa am combat. Zarko am na combat diggante mook bébé Diène doon combat bu rëy. lan mooy sa xalaat. combat sama xalaat ah kon nu ma ko doon waxee yeneen mbëri rek xam man man maay tëkkat boo xam ne. mbër bi saa yu bëree ñooy ànd signature commencement ñoo koy tàmbaleendoo ba hmm. fin signature lépp xam ma géwél xam ñi di tëgal mbër yi xam la am si mbër yi hmm. lamb jot ñi ànd ñoom ñëpp hmm. lamb jot ñi ànd dem esaat tëgal mbër mi mais man maay tëgkat boo xam ne mbër bi saa yu waree bëree ñooy lekkandoo ñooy añandoo ñooy defandoo lépp fu muy dem ñooy ànd mu doon ànd bu dëggu kon ànd boobu bu dëggoo fu ñu mënti dem di uti yàlla suñu borom daf ñuy may ndam. Hmm. waaw loolu gars si bàyyi xel di ko ñaanal nag combat bi yàlla na ko yàlla may ndam di wax nag waa Medina kon mu leen ko doon waxee rek xam man sama wax neexul benn wax laa di wax te wax boobu saa ko waxee di nga koy gis at na ñëpp xam nañ ko jën bébé jën 17 la am ba 18h bu jant bi duggee ba saa waay sotteekoo suuf si. ba diw giresu mbaam bi ba laal soow bi ba wër géew bi lu waaye waxoon ni nga ko wax. Hmm. incha allah loolu ngay yóbbante waa Medina. loolu laa leen yóbbante xam nañ ko parce que ku si munti ñëw barki Seydina Muhammad ku mu munti bëreel wax boobu laa lay wax te wax boobu ni ko yéen koy gis nii 17h ak 18h li tax laaj ma la mooy 17h 18h. mooy bu ñëwee 17h. waaw ba 18 ambiance bi moo ko moom dañ ko koy bàyyil. mooy booy Medina. waaw da ambiance bi lépp. mais ñoom fi ñu tiitee <laughs> bu sar ko ba gaay jël ko ba lël ko ba mu ba mu diwoog suuf si ba daw samet ba wër géew bi ba xool ko li xam ne kii di ñëw kii du ko lu waaye waxoon di nga ko waxaat. Hmm. waaw yow xam nga loolu sax. nga ne pël Fuuta bi loolu moo koy yóbbante. ah pël Fuuta pël Fuuta a ñeme a ñeme maa fee ree dem boroxe ah fuuti say biir day daw de ma dul biir bi daw rek loolu rek laa lay wax. mais Ada Fass lan nga ko waxoon bi muy sar ko kan Ada kooku sama xarit la kooku kooku kooku moom. <laughs> am na loo ko waxoon de. kooku mënu wax wax si wax si moom dara. Ah. parce que lu passé la après làmb la mi quoi. Mm-hmm. parce que gars yi foog ñu koy jàppee noonu mu làmb jeexee jeex na mais làmb jaral nañu lu ne mm-hmm. man Zarko buy bëreel jaral na ma lu ne amul lu mu munti jaralul parce que Serigne Touba bu dee bakkan mu des fa dafay des. Mm-hmm. billaay bu dee bakkan mu des fa dafay des. di ko ñaanal combat bii muy jëm moo guy gi. yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam sama xarit bi. bàyyi dama la ko yéenee Grand Yoff ñëpp ñu ngi ginnaaw Grand Yoff ñëpp Arafas ñëpp ñu ngi ginnaaw man Samba Suuna lépp lu ma si mën a def dama ko si def pour nga am ndam Adam moo nami moo très cher moo compagnie de ger di la ñaanal mbokkum yaay vieux Ada mbokkum yaay Aba maa ngi lay ñaanal de man Samba Suuna saa yoo toogee dal wax amin billaay wallaay dama lay ñaanal góor gu dëgër nga di la ñaanal yàlla suñu borom may la ndam si combat bi yow guy gi guy gi day xaar lu koy tëddloo sax du ko xam en tant que doomu géwél lan lan mooy sa message ci réew mi ni muy doxee. ah réew muy doxee di wax président na wàññi dund bi rek mhm. na wàññi dund bi gars yi am liggéey mhm. gars yi ku si nekk am loo jàpp mhm. waaw parce que réew mi liggéey koy doxal. di wax booy chaque jour ngeen di wax liggéey liggéey liggéey te dañ leen utal ay liggéey tool yi dem bay ji liggéey la. liggéey la ñi lay fay la la de mais c'est que sénégalais moo rëy sénégalais moo rëy ay liggéey ay tool déedéet. yow ñi nekk kaawa di buddi ay orange ak lii nii ñu leen di fay liggéey la man su ma man jomaay bu ma woon tey tey tey tey ne ma sàmm suuna kaa ma jox la liggéey tool damay dem liggéey parce que damay liggéey di fayeku def sama poche jël yóbbu sama kër loolu rek la de di ñaan Sénégal yàlla na am jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla jàmm yàgg Sénégal di ñaanal ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm géwél yeeg ñëpp yàlla na ñëpp bokk ndey ak baay ñëpp doon c'est la famille géwél ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay barki Serigne Touba di wax yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla na jàmm di gërëm sama njaago bi nag Laetitia sama njaago or bi di la ñaanal yow man ak yow du tey démb la woon yàlla sa jàmm yàgg Laetitia ak baba Babacar Bongo sama xarit sànq rek déggante nañu. Babacar eh non sama xarit la kooku sama waay la. mais Samba tamit da ngay Bongo. kan man ah lépp laay def parce que xam la moo xam xam la moo gën a garaaw nit ñi dañu naan Samba suna munoo mais su ma munul du sabar du Bongo. mais man instrument boo ma jox dama si tëgg waa di gërëm nag sama waa kër doom di seen waa famille Sarène mm-hmm. maa leen di bëggee bu baax a baax mm-hmm. di bëggee sama sama sama yaay doom mm-hmm. mami ah maa ngi koy bëggee bu baax yaay bébé faa maa ngi koy remercier bu baax a baax waaw yaa ngi julli maa ngi julli ah mais jullit da ngay jaamu yàlla suñu borom tamit mais am na ñoo xam ne dañuy doon jullit mais duñu jaamu yàlla mais géwél nag ñu dul jaamu yàlla ak a bëri nag géwél ñu dul ak a bëri ñoom nay neex rek mais mais mais mais li tax ñu naan jullit est que est-ce que yaa ngi koy pratiquer. li tax ñu naan maa ngi pratiquer kay parce que parce que nit ku ne. maanaam julli waxtu juróomi. waaw di topp di julli. di juli parce que fonk sa diine parce que loo xam ne waaw parce que loo xam ne yàggul ko loo xam ne yàggul ay sogo noonu rek taxaw julli ñaan yàlla suñu borom pare nekkaat say activité mhm. loolu mais ñu bëri te teewoon nañ def loolu noonu waaw man damay bëgg sax su ma tëgg bu ñu noddee dama bëgg arrêté sabar yi bugguma sax ñuy nootu sax nit di tëgg bugguma sax loolu noonu ak Serigne Touba. waaw mhm. ah, man loolu dafa may déranger bugguma loolu. waa léegi nag ñu ngi ci cappaandawu émission bi euh, dañ lay bàyyi rek Samba euh, nga tàggatoo ak ñi lay déglu di la seetaan. waaw maa ngi bëggee Ndakaaru laay wax man doomu Ndakaaru laa maa ngi bëggee waa Ndakaaru yëpp di bëggee waa Grand bu baax surtout sama gox di gërëm waa Ngomet bu baax di leen sant di remercier nag sama jigéen sama xarit Marie Mendy Séri Cheikh mu am jëkkër ju baax jëkkër ju ma bëgg Cheikh Sadibou borom lali borom lali rafet yi yow maadi kam maadi maadi mooy sa baay kon yow boo defarul lal foo ñu wax ak yow gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Babacar Bongo sama xarit la mhm. dama koy bégee parce que nit bu la yëgee rek yëg na la mhm. chaque jour daf may woo di dégganteeg man chaque jour ak vie sama xarit moo na mi di gërëm waa Derkale mafia bi waa Derkale ñoom Iso ñoom Karim gaa yëpp maa ngi ak waa teen bi gaa yëpp di leen bu baax ak ñoom Pape Mbogane ñoom Bola Jong waa Bola Jong ak Bouba Diaw xaritu Zarko mm-hmm. moom combat bee tax mu jóge France ñëw. Mm-hmm. waaw mu doon ku baax maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax a baax. Zarko di ko conseil si combat bi waaw comme dab rek saa yi Zarko saa jagi mi jagat saa ari araani ni woni baakan yow xam nga li bu baax. yow neex a faral nga yow kenn du la conseil yow amoo conseil de mhm. yow yaay conseil sa bopp loolu loolu dafa jafe mhm. si nit koo xam ne mooy conseil boppam yow di la ñaanal yàlla la yàlla may ndam sama xarit bi Serigne Mati mhm. te gëm naa ne incha allah la kat nag ñu ngi woon Ndakaaru du ñu woo Grand Yoff waaw open press bi naa ne ñu jàpp date bu ñu jàppee date woo côté leen pour ngeen ñëw open nag ñu ngi woon si non à la violence esaat non à la waaw même làmb ji mm-hmm. non à la violence mm-hmm. di woo autorité yi ñun soxlawuñu xaalis dañ jënal xale yi biyee ñu dem esaat bu nekkee xaalis rek ñu ngi sant yàlla dañ jënal booy biyee ñu dem supporter Zarko yi ku si nekk sa gox nga am Grand Yoff bu génnee Grand Yoff bu génnee boo nga xam ne Grand Yoff génn mm-hmm. ak ñoo populaire Grand Yoff bu ñu génnee nga xam ne xañu sax esaat mais nag nañu dee di génn du combat Zarko du combat Samba Suna komba combat grave la grave muy derkale xaar yàlla cité marine. géwél waa sutu surtout loolu di woo géwél yi géwél yi di leen wax seen doom Samba suuna mu ngi leen ñaan combat bii di ñëw képp ku si mën a ñëw jàpp ñëw jàpp si la yàlla tax waaw boo ko ko defal Samba suuna bu ko defal Zarko dañ koy defal ngir grave bi nga dëkk képp képp képp kuy géwél maa lay woo si combat bi waa Arafat surtout ma waa Kër Laama sa combat fa laa su ma ñëwee pap père laa ma danaa ma sàmm suuna jëlal sabar yi lu la neex parce que loolu maa ko fa am mhm. parce que ñoo ma jàngal su ma demee ba mën yàlla ak ñoom la moo tax sànq maa lay wax lu ma mel ñoom la maa ngi leen di bu baax a baax di woo géwél yëpp mhm. di woo tamit papa Fatou géwél mhm. di woo tamit suñu yaay Fatou géwél di ko wax sàmm suuna mu lay ñaan si làmb ji nga ñëw jàpp si te yàlla tax loo mun a jàppale géwél yi ñëw jàpp si te yàlla tax di woo ñëpp autorité yëpp muy monsieur le maire muy Madiop Badara Kébé noonu kooku mooy président bi. Ah. kooku mooy président Grand Yoff mbooloo kooku kooku mooy président mooy mooy lépp kooku sa combat Zarko lu mu dee dee ni na si jàpp ku si nekk loo si mën a jàpp rek jàpp si te yàlla tax bu bu la neexee bul jàpp ngir Samba Suuna bu la neexee bul jàpp ngir Zarko da nga koy def ngir Grand Yoff ngir xale yi ndaw yi ñoom ñëpp am billet dem supporter Zarko loolu laay ñaan na autorité yëpp ñëw jàppale Zarko parce que lakkaat nekkul bés bu ndaw bés bu mag la parce que Medina Medina autorité yi nekk foofu yëpp dañuy jàppale seen seen mbër. ñun grave loolu lañ manqué autorité yi autorité nañ jàppale gars yi nañ jàppale gars yi ñëw jàpp si bolog yi man bolog yi rek laay wax biee yi kase bu nekkee xaalis mu ñu loolu kase di nag ñëpp waa grave asalam grave maa leen di bu baax sama xarit Alassane ñoom Ino ñoom Pisi ñoom Iba ñoom Iba ñoom Pomi gars yëpp maa ngi leen di bëggee bu baax mafia asalam grave ñoom Diop la maire ñoom Yannick ñun si combat bi combat bi nee naa du combat Sarko Sarko Samba Sono ndakaaru la te ñëpp ñëw jàpp si man daal li ma si mën naa ko def mhm. sabari dina bari te ñëpp ñuy xaar fu Zarko di si sottee Samb suuna saafara bi ñëpp ñoom loolu la ñuy xaar incha allah la kaat ñu ngi ko gis esat arène nationale. incha allah la kaat lu waay gisoon lu waay gisuloon ci àdduna di nga ko gis surugu bi ah, loolu la Samb suuna wax foofu la ñu tàggatoowee ak émission bi man nag maa leen di jox rendez-vous. di leen jox dig daje seen beneen numéro ak beneen artiste beneen ndaanaan ci émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi saa su nekk rek nii la fay demee waa dëgg neexul di gërëm nag sama DC Ousmane mu baax mi yow loo caméra wal baaxul su directeur yow daal ca kaw ca kanam ci lu baax. di di di kontaan ci ñëpp yal ñëpp am jàmm. ak Ousmane benn professionnel la boo xam ne moom grand la nekk. mais daa bëgg Grand Yoff professionnel la joueur la mhm. mais ba mu ñëwee ba léegi mu ngi jàppale waa Grand Yoff ku si mel ni Formose Mendy ak Xaadim Joel Xaadim mhm. Joel xam nga ko Xaadim mhm. Joel bu derkale bi tabaxi bi woo ma téléphone yëkkati lu bari may ma ko man Samba Suuna maa ngi koy bu baax di ko gërëm ah di gërëm Mboose tamit di wax ñoom Fallou combat bi combat Mboose la Zarko nee na bi combat Mboose la kon combat ñoom Xaadim Joel la bi nii waaw waaw loolu maa yow yaay borom dergale <laughs> loolu sa yëf la. Mbose yaa dégg loolu kon yow dégg neexul Sarko nee na combat bi sa la kon yow li la ci war xam nga ko def ko ñu ngi jox ñëpp rendez wu ba beneen yoon incha allahu rabbi kontaan nañ ci ñëpp merci beaucoup ciao.